tedd gi ñu ñaanal ko yàlla yàlla dimbale ko ni muy yaree yombut baay dafa waxoon ne bi saaxiri saraxi wa nuuril mubiini wa rabbi saalikiina baay joxe woon na sarta yi loolu yombut de wër leen ci yarkat yi bi saaxiri saraxi muy sarixatu bu seen wécc te baay foog naa lu nit xam ci yàlla ba war a jox gannaaw sarixa moo la ko gën a xam xanaa te terewul dafa fonkoon Saraxatu ba nga xam ne dégg naa ci suñu yaa Balxiis mu netti lu neex lu doy waar waaye lu neex la mu ne bàyyi dañ koo opéré docteur yi na ko doo mën a sëgg pour julli mu ne muy bëgg julli yaa Balxiis na ko yow bàyyi julli yow yaay julli non man maay julli mu ne gisuma lu ma mën a teree julli wax boobu dafa gàtt dafa am solo mu ne ko yow bàyyi yow yaay julli la muy waxi médecin bi xam nga yow yaay julli loolu médecin bi xam nañ li ma moom yow yaay julli waaye bàyyi na ko déedéet man kay gis ma lu ma mën tere julli ci yow seetal wax ji kon sarexa boobu moo nekk fii dana danañ jàngale alquran xale yi dañ koy mokkal danañ jàngale mboolem téere yi mag ñi doon jàngale sëriñ baa ngi koy jàngale te am na ñu ko ca wuutu gannaaw loola waxtu juróomi yëpp ci jumaa ji lañ koy defee gannaaw loola wasifa bi du tardé atara jumaa bi loolu la loolu may gu rëy la ku yàlla jagleen loolu nañ ko ñaanal yàlla yàlla dimbale ko mbokk yi yoonu suufi yank yi sëriñ bi doon waxtaane yoonu soufisme dafa laaj ay avocat yi taxaw pour defeen si ko ndax am nañu jóg léegi seen liggéey ak seen alal yëpp ñu koy dépassé ci lan pour jéem a génn li man ñi tëraloon duñ ci man dara nag ñoom ñoo ciy yàqoo rek alquran ba yaa ayyuhal lazina kafaroo benn yoon la ci ñëw waaye yaa ayyuhal lazina amanoo ñaata yoon la ñëw lool la sëriñ bi doon wax léegi mooy weddi wóorul te boo weddee maqaama bi rek xam ne yow doo ci yegg waaye yaa ayyuhal lazina kafaroo benn yoon la ñëw ci alquran moo tax weddi wóorul kon ñooñu nga xam ne ñoo doon ñooy wutuwante ñooñu nga xam ne ñoom ñooy wutuwante te sëriñ bi wax ko léegi nga xam ne ci ñoom la yàlla di wàccee warsak bi ci la yàlla di taw jëlal juróomi téeméer ya nga xam ne axyaar lañ tegaal xadaratul xams mooy juróomi pay yàlla yi jëlal ñeen fukki yi tegaal xaqaayiq yi muy muy ñeenti ñeen xam yéen ñëpp jëlal ñett ñam waxoon muy ñetti téeméeri tegaal masaayir yi Seexu Tijaan dafa wax radiyallaahu anhu mu ne isa kunta taqaru ilmal huruufi fa saxsuka lawhun bihi asura su ngeen bëgg a jàngi xam-xami pay yàlla bi yóbbu seen jëmm yi ñu bindal leen ci Seexu Tijaan li muy wax coono du ko xam foog ñu wéddi foog njaay dinañ ko wéddi dégg naa ci sëriñ bi wax ne Baye Cheikh Omar Touré nee na Cheikh Ibrahima moo leen wax ne Seexu Tijaan moom lañ natoo wéddi moom la yàlla natoo wéddi ak noonu yu bëri lu tax parce que dégg nga wax ju rëy jooju ku bëgg a jàngi alxuraan ji jàngi saa yëpp jëlal sa kaar na mi dem ñibbi lan la waaye da nga bëgg a xamee yàlla da nga bëgg a jàng pays yàlla bi yóbbul sa jëmm ji ñu bindal la léegi boo ñëwoon ci ron sëñ Habib mii toog nga sukk ci ronam te ànd ak moom muy dëgg nga isil ko sa jëmm ji mu bindal la ci pays yàlla bi yëpp te loolu mooy xam-xam xam-xam dëgg-dëgg dëgg da nga koy delloo ci sa bopp waskur rabbaka fii nafsika waskur rabbaka fii nafsika yontu yàlla Muhammad nee na man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu xadis bi bi mu ñëwee mboolem ñuy solo xadis bi ci bëri da ngay dégg ñu koy jam seexu tijaan ñëw fekk fañ ko sànni ca mbalit ma ne wérul mu xool ko ne lii sama maama ko wax wér na dem jëli ko isi ko teg ñu ne ko nan nga def ba xam seexu tijaan ne xadis bi dafa wér mu ne nañ dellu ci alquran yaa ayuha alladina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma xadamat لقدير واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم سيقول yàlla daf ne wala tëkkoonu ba leen nekk ba leen bokk këllasiina nasullaha mel ni ña fàtte yàlla fa ansa man suñu fàttaloo leen seen bopp ku fàtte yàlla fàtte sa bopp kon ko xam yàlla waaye si yoxuti yaan du morom kon hadis bi wér na kon hadis bi jarul seeti silsila bi jarul dem ci masamba ko solo wala ma demba ci aaya ba la ñuy dellu yàlla nee na bu leen bokk ci ñu mel ni ñu fàtte yàlla ñu fàtte loo leen seen bopp kon ku fàtte yàlla fàtte sa bopp kon ku xam ku xam yàlla looy xam kon hadis bi wér na kon waskur rabbaka fii nafsik barab bii ñu nekk lii moo bi nekk waaye wa islam yaxtadu bii fa sa yaquluuna haasa ifkun xadim nit lu mu xamul ñaar day wax ne lii du dëgg wallaahi mag ñi lañu si dëgg la xale yéen ñi nekk ci ron góor gi yaa xootatil mutta xaqiqa ngeen yoore wurusu ngalam wurusu piir booy ko kenn wecci ku leen wecci li nekk fii ay caaxaan la leen di jox Cheikh Ibrahim du nekk ci caaxaan Baye Cheikh Omar Touré du nekk ci caaxaan Baye Mbaye du nekk ci caaxaan Seydi Aliou Cissé du du nekk ci caaxaan Cheikh Omar Fouti du nekk ci caaxaan Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba du nekk ci caaxaan ñii rek doy nañ ci ne yow mag ñi dëgg la kon bu leen yàlla dimbalee ngeen nekk ci barab bii di fi jàngee ngeen nekk fi di fi xencu yàlla laaj leen sëriñ bi yàlla ni ngeen ko laajee téere yi mu jox leen ko laajee leen ko yàlla mu ngi amee yàlla billaahi lasi laa ilaha illa huwa alquran dafa wax ne wa jaahidu fi sabilillahi ak wa jaahidu fillahi du benn alquran jàng ko ak dégg du benn jihaat ci yoonu yàlla ak jihaat ci yàlla du benn jihaat ci yoonu yàlla mooy seen téere yi leen di jàngal jël ko waaye jihaat ci yàlla nag mooy ngeen ñëw jox ko seen jëmm yi mu bind leen ci yàlla alquran nee na famsu fi manakibiha wa kullu min risqihi wa ilayhi nusur dox leen ci koo i suufi ngeen dem uti wërsëg lu tax mu jëfandikoo ba tax famsu mooy ngeen dox ndànk marché bi jarul xeex diw maa mooma dend taabul waaye dafa mel na sama euh, client yi yëpp diw naa ne du ma jaay parce que nangam jaru ko yàlla mu ne fam suuf fii manaakibihaa ndànk ndànk wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur yéen ñëpp da ngeen jot seen wàll bu leen tàmbu ngant jaru tibbante tànk ñi ne yàlla julli nag mu ne izaa nuudiya li salaati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah fasaw baatam fasaw mooy lan waaxu leen dem julli ji am leen fulla bokkul ak famsu parce que on ila zikrillah waaxu leen dem julli ji balaa ñu leen di raw jarut daw nag dox leen ci wi xaar wegeel dem julli ji ñu ne yàlla buñ soxlaa sa jëmm ji mu ne fafiiru ilallah waqandiku leen pour ngeen am yàlla kooku doo doxle daw soo déparé ku la téye nga xaccu ku la taxaw sa keneen nga puus ko fafiiru pour nga dem ci pay yàlla fafiiru ilallah daw leen jëm ci yàlla kon bu ngeen fi nekkee bu ngeen demee ba jeexal ba delluwaat ci marché yi fam suufi manaakibiha wa kullu min risqi wa ilay nusuur su ngeen déggee hayya ala salaa fasxaw ila zikrillah waaye jamono bu nekk nag da leen ñëw fafiiru ilallah ndax naari dañoo gàtt ci aaya bi fafiiru ilallah naari murtadi yi nga xam ne suñ mag ñi buñ dagaan ci masala te ñoom leen jëm gannaaw gi nga xam ne si Ibrahim du morom bañ jagee ci Cheikh Ibrahim leen ñëw ñëw man jógee ci aay bi fa biro ilallah biñ ñëwee bàyyi na leen fa biro ilallahi mooy lan mooy daw leen jëm ci ajimati jamono daw leen jëm ci ajimati jamono boo takkee sa bagage bi topp xaalis bi daw da ngay daw ba bëgg a dee gis yàlla parce que yàlla mi nga jëm fan la fa ayna maa tuwallu man dakara nii su ngeen maa tudd rek maa ngi ne jom mu toog man yàlla den na yéen faskuruni askurkum bo allah yàlla tudd waaw kii jarul daw kon bu alquran ne fafiru ilallah daw leen ñëw ci seen habib loolu mooy fafiru ilallah naka nekkul fi dëgg rek moo fi nekk danañ la yar danañ la jàngal danañ la jox bi yàlla ba xam ne mbooleem lu alquran di koy xam yow te alquran nag daanaka léeb rek la daraba laahu masalan daraba laahu masalan kalimatan tayyibatan ka sajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تدلي بي يلا من لا إله إلا الله قرب لا دفع الساعة بانقاس بي بين هو بانقاس دي فرعها وقول فروع دي بين بانقاس لا بين بانقاس تكو أزمان من يمي داي سوتي في جمانو بنك دورات مك لي دو ليب ñun dañoo foogoon ne laa ilaha illa balaa kee mën a nekk da nga dem àllaaxira yàlla ne déedéet léegi léegi léegi léegi mu ngi meññ di meññ lekk leen gaaw isa marartum bi riyaadil janna fartahu su ngeen rombee gaari ne àddina yi lekk leen ñu ne ko yaay rasulallah mar riyaadil janna fan lañ mën a nekkee ci xaruna ba pare di jot gaari ne àjjana mu ne gaari ne àjjana waaye xelqatu dikri barab bu ngeen romb ñuy wax laa ilaha illallah su ngeen fa toogee da ngeen lekk meññitu àjjana ana ñan ñooy lekk ci meññitu àjjana boo ñëwul ci sëñ wala nga ñëw ci ñu mel ni sëñ Habib lii moom la seex Cheikh Ibrahima yoore lii moom la sëñ Touba yoore lii la Massamba yoore ma dem ba ñi ngeen dégg ci mag ñi yëpp lii lañ yoore waaye nag rawante nañ ci ndax niñ ci rawante mooy lan Cheikh Tiyaan balaam fee jógee dafa waxoon ne taati faydatu ala ashaabi yéen ñi jël wirde yëpp li ngeen jël baax na mooy tariqa la wirde leen ngeen dem ci yàlla ngeen góorgóorlu waaye maa ngi leen di tàggu di leen wax ne teen ngeen yore di root mooy kurus gi waaye pompe ngi ñëw taati faydu loolu lay teen ngeen yore di root mooy kurus gi yéen xacci leen ngeen dem te yàlla ali tamasini ak seydi mahamadul misri ñoom ñëpp àgg nañ ci yàlla ci seen kurus yi waaye Seexu Tijaan ne maa ngi leen di tàggu taati faydatu hala ashaabi fayda dañ koo mufradal benn faydu mooy ñëw ci moom la faydu yi di xaccoo di tàllalu fayda tan suma fayda tan bit tawaali faydi boobu bu ñëwee mooy pompe yi sa biir néeg ngay dugal walan boo xam ne da ngay dugg rek ubbi ndox yi sottee loolu dafa jël di dem ci teen lii la Cheikh Ibrahim yoore ñu ngi koy misaal loolu la wax teen bu dul ŋàcc goj bu dul dog baat boo xam ne du bënn rootkat bu dul sonn mbalka fees loolu mooy xaahuut laahuut jabarul malakoon naasu nii la Cheikh Ibrahim léebee yàlla bi lii dafa leer قر قر الليل قل الليل زين بهني سريعة الحقيقة نيو عند كم ولنا تقل تحقيقة مولا يبت ما هي بدي بلاي بدن تيل دقيرة باي تبين مدينة نيب دي كل دقيرة مولي لين فون كي بلاف حقيقة بي نلين بوزن جيل دوح بي يالله بي دقيرة باي وقو باي دوا وقت جاهل بدن تيل توك بدن سرين بين قر قر ما هي قدر تواجه جرام بتجيري ما هي تقولون بلامي يب تما بيت تما يبي تما يبي سن مغلا سن سين لا suñ mbokk la ndesit la wala fer ñeent la ci Baye Cheikh Omar Touré Baye Cheikh Omar Touré fer ñeent la ci Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass kii képp ku ko laal képp ku ko mos képp ku ànd moom Baye Cheikh Omar Touré nga ànd ak ci bila sekkin wala rien képp ku ànd ak moom ci loolu benn weerante Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass nga àndal waxuma ko ndax ci suma bët yi ndax li muy def dafa leer wala ci Sénégal ak Gambie fa suñu barab bu mel suñ puugare loo dañ koy puugare woo yal na ko fi yàlla bàyyi yal na fi yàggal ñun yal na wér maa ngi nuyu kilifa yëpp sama goroo gi alaaji Asan Kamara sëñ bi sant ñëpp alaaji mbayeen mbayeen bu bëgg maalo bi sisi sisi yaa ngi ci kaw xam naa ne ñeneen ñi def nañ ci lu rëy tey wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin ولا سيما حب إذا في مواقف مجمعي وذلك هب القطب أحمد سيدي وذا موقع الأسرار في كل موضعي الحمد لله